Ah, asalaamaaleykum mbokk yéen ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com comme ni nga ko xamoon rek JT Lamb ñëwaat na samedi bu nekk ñu andi leen ko bee passé Babacar la woon ak Jamaïcain boobu nag maa ngi dëkk ba di Galayaabe waaye tey nag ñëwaat na comme ni ngeen ko doon laajee Babacar ak Lamine ñoo koy def balaa dara dañuy dem ci sommaire bi ñëwaat. sommaire bi tey fu muy njëkkee mooy Balla Gaye 2 ak Modou Lo moom mooy combat bu mag bi nga xamante ne taxaw na bi saison bi tëjee ba léegi boo ba léegi gisaatuñu benn grand combat taxaw ay combat ndaw rek lañ fi gis moom mooy taxaw. léegi danañ ñëwaat ci ñoom ñaar li ñu waxante woon ba seen combat taxaw ndax ñoom ñaar ñoo waral combat bi taxaw wala promoteur yi ñoo bëgg combat bi rek yeneen combat ba léegi taxawagul donte ñoo ngi wax ay Boy Niang Lac de Gris Bordeaux Ama Baldé mais gisaguñu dara li nga xamante ne moo xew tamit muy Sa Cadior yàlla teg ko nattu loolu tamit dinañ ci ñëw Bazoka ma nga États-Unis Bébé Modou mu ngi États-Unis ñoom ñaar ñëpp danañ seetaan seen ay vidéo xanaa dañoo nar a ñëwaat bëri ci làmb ji wala dañu entraîné noonu rek pour garder seen forme ma seq ko ak Babacar rek comme niñ ko doon defee Babacar maa ngi lay maa ngi lay ziar Lamine di la fay comme niñ ko waxee tey ci samedi ji di nuyu bépp internet bu suivre TV point rek fu ñu mën ne ci àddina bi ko waxee nag JT ñëwaat normal ñu maag jamaykee ñu àndoon ci ak mbër bu ñuy wax Forza 2 tey nag ñu ñëw comme loolu nga wax ci sommaire bi rek ah boo ñu joxee ndigal bi rek ñu dem indi ci suñu jàngat parce que li nga wax yëpp am na solo ñu ay vidéo ñu war a seetaan ak ay combat yoo xam war nañoo jàngat lu tax combat yu mag yi taxawul ba tey. Mm-hmm. comme ni ma la ko waxee sànq rek ci sommaire bi Balla Gaye ak Modou Lo ñoom ñaar avant seen combat taxaw ku ci nekk am na lu mu waxoon moromam dañuy dem seetaan loolu te ñëwaat. dégg naa tamit si wewu nag ñu ne Aziz bëgg na sa combat ak Balla Gaye Aziz bu ñëwee pour tëgg ko di nga bëri. <laughs> xaw ma xaw laa war a wax sax <laughs> bu ko dëggoon seen biir kër sax ñu fay ma ma gën a damay bëre <laughs> loolu gën a dee xanaa waaye biir këram boo ko biir góoram biir këram biir kër ki nga wax eh? ki nga wax daal. biir kër Aziz. non biir kër ki nga wax. waaye. biir kër Balla Gaye. biir kër Balla Gaye. <laughs> amul lu may wax dëgg yàlla. le lion de Guédiawaye Balla Gaye ngay wax di Modou. <laughs> lion la ñu ñooy lion parcelle. Hmm. ay. pare nga fi mu ne bu la promoteur noonu kaay ñu tëgg ko biir koñam sax nga ne ko nañ sëgg wala ci kër gi. billahi wallahi awu problème boobu amul lu may ragal ci loolu. Mm. Euh, Moodu seen diggante dama ko fekk këram mu ne ma yaa ma ne ko yàgg Balla mu ne bu doon ci sa biir saal bii la pare na. Mm. nga saal moom ngay wax yàq sa wax rek la waaye saal kenn ci bëri xam ah, bu ne saal bi mën na ko néeg sa néeg sax bu ne ñoom lañ fa bëri waaw nga saal moom dafa sax yaatu waaye néeg moom yaatuwul man boo mu yóbbuwoon néegam sama bëri ak moom du dëgg waaye la ma ko wax laa koy waxaat. taxumaa jóg barke Serigne Saliou laa la wax ne taxumaa jóg. Modou Lo taxulaa jóg. déedéet. Balla gis nga Modou temps yi Modou soppeeku na de. lan moo soppeeku ci moom. a ah, damaa gis léegi bu duggee ci biir poids yi indi leen ay problème di daan ñii ñii mu leen di yóbbu ardu. ak seetaan nga Balla Gaye numéro 2 këram la saalam la seetaan nga Modou Lo këram la saalam la ñoom ñaar ku ci nekk am na loo jot a wax sa morom avant combat bi di taxaw mu mel ni ñoom ñaar ñëpp dañoo bëggoon combat bi taxaw. waa Lamine seetaan nañ leen ñoom ñaar boo xoolee Modou Lo lañ njëkkoon a dem ci këram jël ko ci luttetv.com ba ba ma ko waxee ba wax ko waxu Balla Gaye nangul sax jaar ci turam kooku rek la wax kooku ngay wax ma ne ko kan maa ngi koy réer sa naan ko Aziz Ndiaye mu ne ma ki ngay wax ma ne ko kon Balla ngay wax mu ne ma loo ci mën a dégg daal ki ngay wax saalam si si si buntu këram sax pare naa ngir fekk fa bëri ak moom. Modou loolu la waxoon ci fii nga xam ne mooy Lutte TV Balla tamit comme li ñuy wax rek Lutte TV ñaar ñëpp la fi nekkal ñu sol suñu daal dem ba këram moom it fekk ko golf gi biir saalam moom itam la mu waxoon mooy que ba Modou Lo du ma sa nangu ne du ma moromam. te du ma moromam. nee na mbapat ak lépp ci yem ba ci arène te naan fu ma ko fekk dama ko fay jëlee magel bi muy wax sax foofu la ko njëkk a waxee. wala boo xoolee am na lu mu ci jotoon wax kon nag Balla li mu jàpp mooy du moromu Modou Lo te maanaam moom nee sama buntu kër su ma fekkee ñu bëri loolu la Modou wax Balla ne moom biir saalam salle de bain su buñ ko buñ fa suulee sax mu bëreek moom te dama koy daanaat yegg na ba ci àpp sax nee na bii yoon ci fukki seconde la koy daan muy ñaari wax yoo xam ne ñoom ñaar boo gisee ku ci ne li nga wax ci luttetv.com loolu moo lay wan ne ñoom ñaar ku ci ne rek Lamine combat bi bëggoon nga mu taxaw donte promoteurs yi bëggoon ko amateurs yi bëggoon ko mais ñoom ñaar ko gën a parce que kii di Balla dafa jàpp ne du moromu Modou te deuxième combat la ko ko mën a prouver la àddina bi xam loolu Modou jàpp ne la ko daloon njuumte la te day corriger waat Balla bu ñu ci delloo. loolu nag ci kanam la. mu mel ne seen combat bi avant muy taxaw noonu boo seetaanee ñoom ñaar dañuy waxante da nga naan Modou moo gën a bëgg combat bi taxaw mais Balla Gaye tamit am na lu mu wax nee na Modou Lo day onk rek. waaw day onk la wax onk nag mooy ku ñu teg lu diis. xam nga yow onk xam nga ko. xam nga boo jëlee ab saako cent kilos teg ko ci ginnaaw ak gune. foo jaar dina onk ko defi affaire. Ah. bala nag loolu la waxoon ne ne Modou moom boo ba mënul ko digérer ba ñu bëree ba tey day onk onk bi nag man li ma ko ma tekkee mooy kani am lu ko naqari mbër nag. bu dee mbër dëgg nga lamin ku la daan ah wax dëgg yàlla di nga bëgg loolu dañ bu ni ngay defee mu dañ nag mooy ci sa xol da nga ko ciy jàpp mais di ko liggéey mu nag bu ñu ko xoolee dëgg de ba ko bàlla daanee ak tey ku ko xool di nga xam ne progressé na ci wàllu doole technique ak ci lépp lu nga xam ne mbër war na ko àndaale pour war a mën a jàqaloog adversaire am te comme li nga wax tamit xëy na bàlla wala Moodu xëy na moo gënoon bëgg combat bi taxaw mais ni ko Moodu noonu la ko bàlla bëggee woon li ma ci bàlla moo ci ne parce que nit ñi dañ ne bàlla mënatul daan Modou amatul doole bi Balla nag dafa bëgg a wan monde bi ne lam ko mën a woon noonu la ko mën a woon Modou wan bëgg ko woon te léegi maanaam xale ñaar ñëpp ku ci nekk ren bëri nga combat bu yàgg bëri nga presque quarante minutes. jël amul moom dama bëgg nga luqatal ma loolu quarante minutes yi seen trente minutes li gën a tàng ci combat bi. làmb ju waroon a neex la tey. ci bëre ci xeex ci lépp ndax wax dëgg yàlla boo leen gisee xam ne entraîné nañu waaw lak sànni na góos lii doy na waar lamb ju doy waar a ngi Modou jam na ko góos lak fayu Modou lak jël na ko lak da gerte la ilaha illallah mot Modou mot illallah Modou ngay door Lac de door na ko loolu dal na de loolu dal na de waaw waaw Modou Lo ñamanta ba metti na Lamine Modou Lo mën na bëree Lac de Guiers de daw na jël ko xeex ñu ngay xeex de mbaa door mu daanu du fi am moo doon ko teddi ko door xeex Lac de na saaku yi oh Modou Lo Modou Lo kii pank la. Babacar la. Modou Lo pank la. antu le combat bi de. Lac de Guiers am na ñaari avertissement. am na ña dem na ci médecin bi deux fois. kon Modou jëlaat na ko Modou xeex ak moom xeex. ñu ngi xeex moo doon jam la dageer boo génnaatee jël avertissement la door na droite oh xeex la day génn wala fu mu jëm la dageer de da nga jël avertissement lan la nii Babacar Babacar kotuma waay lii kotuma buur kotuma lamba ngi nii lamba ngi buur lamba ngi buur lamba ngi parce que Rasulullah Lac de Guiers na ñetteel avertissement dem ñetti yoon ci docteur bi kon mi mel ni Modou Lo fi mu ne nii li xale yi naan yaay tirisé moo doy bi di ko contrôlé ah Modou Lo waaye bés bi neex la Babacar xale bi ak xale géejawaay bi ah waaw toj nen ñu ngay lewaato Sitor suuf la bal la toj nen ñuy lewaato e eh, ñu ngay lewaato Samba Kara e rim ka couture borom ñawi rafet gaaya ngay lewaato ñu ngay lewtoo de Serge Dione Italie maa lay bëggee ñu ngay lewtoo Serge bilay ñu ngay lewtoo Libaas gaaya ngay lewtoo Espagne Habib ñu ngi lewtoo de maître Balla Gris ngay lewtoo eh Balla daw na jëli Gris Balla jël na Gris Balla kay eh ak Gris Bordeaux Balla Gris Balla Gris Gris war na Balla ñu ngay xandaalu ñu ngay xeex Balla gët na Gris Gris Bordeaux Balla kay xeex xeex Gris ngi dox Balla ngi dox ci koom mu ngi dox ci koom Gris fu mu jëm balaa nga lu mu ko bëgg a def eh, dóor mu daanu mbaa du am Balla Gaye xeex na Gris xeex bu metti la ilaha illallah eh bii combat Gris Balla jàppante la ilaha illallah eh bii combat xeex ba tar na wëndeelu wërante eh Balla Gaye 2 Gris Bordeaux gaynde Guédiawaye Tigre de Fass ñu ngi jàpp di déglonte jàpp di déglonte balaa ngay dóor balaa ngi dóor Sitor ne na ko foofu kenn du fi dóor balaa ngi dóor balaa ngi dóor foofu muy dóor baaxul balla fi ngay dóor baaxul bi combat man de waaru naa tey biib xeex balla giri bi combat balaa ngi dox giri giri na jàkk di ko xool giri door na ko inte la ilaha illallah inte yu dal giri door na inte ñu ngi xeex xeex balla giri ñu ngay xeex téere yaa ngay dag la ilaha illallah balla gay de giri bordeaux balla giri xeex bi metti na bii combat tar na bii combat tar na Lamine balla giri lamb ju lig tëgg mu doy waar lamb ju lig tëgg day doy waar Balla ngi dóor Balla ngay dóor giri jàpp droite bi bëgg a dóor moom Balla ñu ngi xeex xeex i koj Balla giri fu ñu jëm giri génnal na boppam bu fi jeexee rek du baax buur stade bi li fi ñëw tey bari na waa Balla lu muy def nii moom Balla lu door nañu ko góos Balla door nañu ko góos Balla mbaa duñ la door nga daanu loolu wóorul Balla bul fooye sa combat Balla bul fooye sa combat Balla Gaye mu ngay door gis nga ko ñoom ñaar ki Balla Gaye ak Gris Bordeaux la Lac de Modou Lo seen combat yi yàgg na te tàng boo xoolee bi ñu njëkk a gis mooy Lac de Guiers de Modou ñoom ñoo njëkk a bëri boo xoolee seen komba kera ñaari mbër yi ci géew bi doone Lac de Guiers manqué na entraînement doone Modou Lo manqué na entraînement ku ci ne indi nañ la liñ la war a indee say supporter ànd ak yow nga ñëw mais boo xoolee ci taxawaay bi dañuy jàpp na xëy ne Lac de Guiers 2 moo ëpp doole Modou mais ci biir bëri bi loolu du ci feeñ Lamine boo xoolee attaques yi yi ci ëpp Modou da ko doon def donte Lac de Guiers doon na attaqué mais boo xoolee euh, ni mu bëree ak Lac de mu lay wan ne Modou Lo néewul xam-xamu bëre néewul doole que euh, donte xalaatoon nañ Lac de Guiers ëpp ko doole mais loolu feeñul ci biir làmb ji parce que géré na ko ci côté bagarre bi géré ko ci côté bëre bi ba combat bi dem ba 40 minutes jël la mënu fa am ba fi jël bi fi mu mujjee amee mooy avertissement yu Lac de Guiers jël 4 muudu am lu ko gën a néew ñu yëkkati loxo muudu muy ndam loo xam ne tamit ah neex na ci moom parce que bëri woon nañu match nul suñu rawansaatee mu daan ko ci noonu ci attaque yoo xam ne dañ ne lépp moo doon attaqué ak génn yi la dëgg doon génn kon loolu moo lay wan ne muudu loo tamit dafa mel ni fi mu nekk nii daal VIP yi wala boog ñi nga xam ne ay poids lañu dafa mel ni maîtrise na ni muy bëre ak ñoom fi mu nekk nii actuellement Gris Bordeaux Balla Gaye tamit ni ñu xoolee Modou Lo ak noonu la demee boo xoolee ñoom ñaar bi ñuy jëm ci combat bi ci côté bëre dañu xalaatoon ne Gris Balla moo ko moo euh, Balla Gris ëpp ci mais boo xoolee combat bi contraire boobu moo ci am mais Balla itam combat ak gri li ngay xool mooy nit ñi dañ ne woon Balla mënatul am doole bi mu am wala mënatul amatul physique mais Lamine ku bëri 40 minutes ah.

dégg nañ ci Leewtoo dégg nañ ci Bécaye Mbaye tamit. waaw Lac de Guiers ak ki nga xam ne nii moom mooy Boy Niang moom waa Leewtoo bëgg nañ ko ñu ngi ciy wax boobu ba tey taxaw ak du taxaw demoon nañ si sax bay avancé ay turu ay kase naan temps lañ leen fay si xaalis temps lañ doon wax ne moom lañ ko fay demeewul noonu mais moom Lac de Guiers tamit dafa mel ni def na beneen riposte nee daal sax moom bëritul ak Boy Niang même bu ñu ko fayoon 70 millions kase dañ lay fay léeg la bëreetul ak ki nga xam ne mooy Boy Niang mooy ay waxam Ama Baldé tamit ko zalik ni ñu ko waxee naka noonu ñu ngi dégg ko diggante ma Gris Bordeaux ñu ngi naan waa Leewtoo bëgg nañ ko dégg nañ ci ne Père Bécaye mu ngi koy dox bu des TV ba woon sax magam Zil Baldé Zil Baldé confirmé na loolu loolu tamit liñ ci jële mooy que ni lambu Gris Ama Lamine dafa nekk dër bi Fass Pikine bu nga xam ne Sénégal yëpp fi mu nekk nii dañuy reefe wala amateuru yàlla teg ko nattu depuis temps bu yàgg toog na bëriwul. Mm-hmm. ba feebaram yënguwaat. Mm-hmm. ba yaakaar naa ne instant bi ñëpp ñu ngi ciy jóg di ci wax. waa Lamine muy loo xam ne lu daw yaram la wax dëgg yàlla bi ñu seetaanee image yi ci 2STV ak Moodu Mbay da xam ne que ne àddina amul solo te li am solo mooy que ni nit ku nekk rek war ngay sóor ne que ëllëg nu nekk lay dikk nit da man tey suba nga tële Sa Kajoor nag mbër la mi nga xam ne nekk na si làmb nekk xale mënu fee mësu fee def lu nga xam ne dañ naan indiscipline la bëre bëreem lay def lu mu ci jëlee dem yàlla teg ko nattu mu feebaroon ba ñu ne woon wéroon na mais yàlla def loolu yeewuwaat biñ ko nekkee nag wax dëgg yàlla Moodu Mbay mi ko def tam ñu koy jaajëfal parce que wane na ko ba àddina gis ko ba tey ñu ngi dégg sax ne première dame loxoom pour ñu war ko jël en charge yóbbu ko à l'extérieur faji ko loolu tamit dañuy ñaan yàlla mu réussir ba mu mën a dellusi ci njabootam dem na voilà kon yàlla na ko yàlla wéral ba mu diggaat si njabootam ak soxnaam man li ma si gën a marqué Lamine soxnaam hmm. parce que gore am na solo trop jigéen buy sëy war nay jiital ngor ci lépp lu muy def ndax nag ku ne xam na ne mettit ku ne lay dal mais bu ko neexoon ah waaw mënoon na doxale leneen daal am na solo waaw am na solo nit mooy ànd ak moom su mettee mhm. su neexee su mettee da ngaa war a continuer ànd ak moom rek mhm. beneen affaire boo xamante ba léegi ci mbiru Sa Cadior moom dafa am na ma jaaxal xew-xewu làmb ji groupe whatsapp la mhm. xam nga ko am na presque deux cent cinquante personnes yu ci Mamadou Kassé dëkk Mbour ginnaaw keroog bi ñu fa demee Mbour. Mhm. fekk ko mu feebar. Mhm. am na ket bu ñu ko defaloon ba am li ñu jotoon a dajale ba yóbbul ko ko. Mhm. keroog bi ñu déggee tamit ni Sakajor feebar na. def nañ même chose bi. ba defar ay ay tasaare ko ci réseaux sociaux yi. mais nag ñi nga xamante ne ñoo joxe seen numéro seen numéro lañ def foofu. pour orange money bi neen dañ leen di woo di leen wax ay wax yoo xam ne waruñu leen ko wax te def lu baax rek moo leen ci moo leen taxoon a jóg. Hmm, waaw Lamine doy na waar groupe xew-xew làmb ji ni nga ko waxee ñu nuyu ñu fa nekk ñëpp ñoom mag sa gaay yi fa nekk ñëpp yow mi sa defe naa. bokk nga ca biir ak yeneen nit. loolu nag ñoom boo leen gisee ñun bi ñu fi jëlee Mamadou Kassé an bu dëkk Mbour Mamadou Diop te yàlla teg ko nattu moom it muy mbër defoon nañu loolu te nañ koy def ñu gisee saa kajoor loolu ñu def ko ci ñun du ñu mën maanaam lu dul jaajëfal leen li ah ko def yàlla mi yàlla moo gën a xam nit ki boppam li nga yéene ci sa moromam jaam ci mbaax fas ko ko yéene defal soo ko yéene rek bu yéene ja tàbbee rek yàlla moom bindal na la ci aw yiw mais du nit parce que nag lépp lu doomu aadamay def rek boromam la si war a jiital am na solo dem nañ sax ba kër Saa Kajoor fekk nañ fa soxnaam waaye yooyu tamit mënul ñàkk ndax am na ñuy gàmmu si ak ñuy raas dem dañuy yem foofu continuer Mohamed nga wan ma Bazoka ma nga États-Unis ma ngay waajal xam nga lu muy waajal nag Bébé Mourlo tamit ma nga Italie ñoom ñaar ñëpp demal nga luqatil ma leen wan ci seen état de forme yi nekk. normalement ça, ça représente quelque chose. thing. Jeez. Yeah, a weed like Bahamas. Weed. Ok, finale. Finale. Uh. Vamos lá. xanaa xamoo li may bind nii yëpp maa ma pare ah lii de neexutul nag léegi moom bëgg a bëri. Anladım. seetaan nga bazooka noonu Babacar mu ngi ci salle de musculation yi di yokk dooleem xaw ma dafa nar a bëriwaat xaw ma dafa day day day garder forme am rek. li may wax li may njëkk a wax mooy que ni Lutte TV moom ah. caméraman yeeg ñi fi nekk dañ leen naan jaaraama ndax nag fàttewuñu kenn te fexe nañ ba indi ci bazooka gis nañ ko noonu mu ngi nekk États-Unis fu ñuy wax Caroline du nekk ci saal yi di préparer boppam mu loolay wan ne bi mu fiy jógee licence am jeexul te actuellement ñu koy wax ne licence am jeexul kon am na droit préparer ñëwaat ci làmb ji bëree mhm. donte nag mu ngi États-Unis di dund ak njabootam ak soxnaam ñu koy ziar di ko ñaanal mais li li am daal mooy que ni Basoka ku ko gis xam ne ah fàttewul wala boog bàyyiwul li nga xam ne ci la nekkoon mu ngi ci ay ci saal mu ngi ci liggéeyam muy nekk mbër bi nga xam ne tamit ku ko xam bi mu nekkee fii Sénégal di bëri di nga xam ne mbër mu am audace la si lu mu doon def am fulla am fayda saa yu ñëwaan ci làmb day dëggal boppam ba lu ko yàlla may mu jël yaakaar naa fàttaliku nga kombaam ak Tafatine. Mm-hmm. fàttaliku ma ak euh, ki nga xam mooy mooy Brisli. aller retour. xam nga bëri na ay combat yu fi bëri yoo xam ne daf ci am ay ndam yu rëy rëy nekk un grand champion bi nga xam ne. vraiment nekk sportif en même temps parce que moom sportif la en même temps te professionnel ci lim doon liggéey xëy na loolu bokk na ci li ko poussé sax tey ba muy nekk ci yenn réew yi di am yenn relation yi bay nekk ci yenn liggéey. biñ la wanee Bazoka ba pare wan nañ la bébé Modou moom moom contact la def. nekk Italie fi nekkoon rock énergie depuis boobu ba day mu dem Italie toog fa moom tamit ne ci liggéeyam même dañ ko wane muy contact moo lay wan nekk rek moom xale la bébé naa mhm. mhm. mhm. muy xëy na daa xalaat bu ñëwaatee renouveler licence dugaat bëre loolu tamit dañ ko naan rek ah na dal ak jàmm bu ñëwaatee Sénégal bu ko neexee mën na bëree mais loo ci mën a dégg daal am na gaay moom ñu ngi fii si ci réew mi demuñu fenn ñu ngi fii di contact ku ñëw itam xam naa bu bëggee combat yàlla ni nga ko wax mm-hmm. rek a sax ci làmb Koña moo ko jox suma juumul. Mm-hmm. Mm-hmm. sax muy toj. mu ngi mu daanu ñu bëri dañoo mm. dañu jàpp ne ni mu bëree ñu bëri sax ñu xaatu est kii ñi mën a Koña Koña boobu parce façon bëre ba jël ba moo gaaw bett nit ñi Koña nag loolu yàgg na ko yàgg na saa jumloo mbër parce yàgg na teg tànkam nga naw di ko jëli rek mu tajeeg yow sànni la fële hmm. mais bébé mu loo boobu dañu xalaatoon ne Koña du moo koy téye hmm. combat yi mu doon bëre fugg bi mu àndaloon am doole macha allah. pare sës ci Modou ba pare sës rëkk ci Modou jamono jooju waaw mais nag xam nga lamb rek Lamine lamb dafa doy waar. Mhm. lamb moom li ci biir mënee su ko wax lamb daal lamb la. day war da ngay nekk ci niveau bu kawe ba nit mu ngi mu mu mbër waa daa ngi nii mais nga jékki-jékki rythme boobu wàcc beese ba nga xam ne day jaaxal nit ñi loolu nag li lay may mooy nga reculer rek pour mën a sotewaat bu baax a baax. pour mieux sote waaw pour waaw. waaw li mu bëggoon sax daaw mooy mooy bokk ci TFP bi waxtaanoon naa mais comme mujj la bokk xam naa loolu tax ñëwul. Mm-hmm. mais comme bëgg naa ñëw bëgg naa bëriwaat. Mm-hmm. ñu koy ñaanal rek lu muy séntu foofu yàlla defal ko ko. Mm-hmm. maanaam mu ñëwaat Sénégal pour mën a compétiraat bokkaat ci mbir parce que xale la. war nay bëre di del di dem di ñëw loolu mën na ne. parce que gis nañ fi mbir yaa ngi nii di dem ak ñëw te terewul ñu ngi am seen i di compétir di bëre te moom vraiment xale la ci làmb parce que nag génération bàyyi ko promoteur yi bàyyi xel ñun tamit ñuy bàyyi xel gars yi suivre lu tv point com yëpp. mu mel ni JT bi loolu lañ leen indiwaatal leen ko ngeen seetaanaat. waaw du mën a ñàkk parce que tamit li ñu andi tey sax boo nag dama naan am na solo parce nag li tax mu am solo mooy Modou Lo Balla Gaye de olof ne lu def waxu lu gars yi di njàmbat te mi la waxoon rek làmb la joo xam ne làmb ji ana bii ñu jëm ba bu làmb ji jëpp doole tamit ah boo ko deful premier di def deuxième mhm. kon defe naa fàttali ci nit ñi ñu fàttaliku ci waat ci am na solo comme ni ñu koy waxee tamit JT moom pour làmb la comme li nga semaine prochaine wala samedi incha allahu rabbi dinañ fexe tànnalaat leen yeneen élément yu gën a neex parce lu mu gën a neex rek du doy parce que ñuy mënuñu am seen fay moo tax lu ñu leen jox rek doyul daal Lamine. te balaa tamit yàlla na Gris Bordeaux kii taxaw Ama yàlla na taxaw. booy ñaar Lac taxaw Tafatine loolu mooy làmb ji tamit. waaw fi nekk nii làmb ji wiir wiir naan ay Tafatine Ama Balde ak yooyu noonu. <laughs> Gris Bordeaux mhm. a Gris Bordeaux Ama Baldé bëri Boy Niang Lac de Guiers de bëri. Papa tamit ku nekk sa xalaat ngay joxe mais am nañu lu ñu leer ci ni combat boobu ñu ngi koy dox te yaakaar naa ne problème mu kase moo tax ba léegi combat bi taxawagul. Eh, bu bu dee promoteur nga koy dox it yàlla na ko taxawal. Mhm. Papa Sow moo guy gi war na a ne. Mhm. Siteu ak Garga Mbossé combat la. lamb yaa ngi noonu l'an 2000 daan na bu yàggul xale bu ndaw Farouz mu ngi ci biir ñoom Thiat mbër yooyu nga xam ne bëri daaw ay Modja ñoom ñëpp a ngi fi. Dieng Kaire Quench combat la Valdo Quench combat la Balla maam Balla non recul bi daan dugul matar bërki dem mu ngi ci biir mbër yi bu ñu leen limee du ñu jeex ay xale ngi fi ñoom bursin toj ay kéwél ay Pam Ndoy bu Faas Serigne Ndiaye numéro 2 Zambala xam nga général Malick. mais combat espoir yëpp man bi ma ci gën a neex. Ah. bëgg promoteur yi tëgg ko mooy Jetli Garga 2 loolu mooy làmb ji. waaw combat bu neex dàq ko ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ te ay technicien lañ ñoom ñaar ñëpp. Lamine lambi bëreekat ngay ñaari mbër yoo xam ne ñoom ñaar xam nga seen la. Mm-hmm. Jetli day garga de day teg di teggi mm-hmm. maanaam dañuy wuree ñoom seen bëree combat bi daal gaaw la laaj kon non ma maanaam ñoom ñaar ku ku yéex dañ lay daan mm-hmm. parce ay wërkat la ay li bu ne ñàpp sa tànk bu ci gisul lu mu xam uti na leneen mm-hmm. garga de ñu def rek bu baaxul a mën a nekk si àdduna bi mooy Abdou bu xarañ ak Mame Balla bu Balla Gaye numéro 2. Abdou Boukhari ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak maam Balla bu Balla Gaye 2. Mm-hmm. parce que ni nga waxee rek ku fóotal mbët roccil bar noonu la ko olof yi waxee Abdou Boukhari ñu ngi lay ziar maam Balla bu Balla Gaye ñu ngi lay ziar waaye Awa Diop tamit bu Balla Gaye depuis Touba ñu ngi koy ziar. Mm-hmm. ak Fatou Top bu Modou Xarañ la moom tamit. fii parcelle ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu képp kuy. si ndax dégg ah. Ah, nga ko. waaw bu Moustapha Gueye. Mm-hmm. yooyu da ko mu ne am nga ay soppe am ñu lay supporter am ñu la bëgg kon daal li ñuy wax mbër yi mooy nañ gën a fonkaat entraînement yi mbër nag Lamine lamb amul secret mystique am na njariñ réalité la si lamb la bokk waaye nag premier élément wu lamb mooy liggéey entraîner la koy dolli mooy jàng bëri nangoo jàng bëri te amu fit mhm. ñett yi moom bu nee ci yow buñ la ñaanalee maanaam ñaan nga dina yomba jàpp waaw loolu moom mbër yëpp laa koy adressé mhm. nañu nangoo uti doole te nangu tamit li nga xam ne nii mooy entraîné bu baax a baax a baax tey jàng bëri jàng bëri nag mooy di dugg ci mbappat yi di bëri. di nuyu tamit Mamadou Sow bi nga xamante ne mooy Sow Mamadou Sow production. Sow production Sow production moo tëgg combat Boy Bawol Malo Seras man ak yow ak Mohamed dam nañ deux jours Fouta. Caareen waaw Caareen. Lamine Caareen Wuro Soogi. Wuro Soogi waaw. yaa ngi dégg Matam romb Daara Jolof. romb romb waaw romb ay dëkk yu bëree bëree bëri sama mbokku pëli Mamadou Sow alias Okosa. Okosa moom itam di doomu Caareen Lamine Kera loolu doom ju war nga koy xeex ci sa dëkk xam nga mën nga dëkk ci dëkk bi te doo bokk ci ñi defar dëkk bi mais moom bokk na ci ndax la tax élèves yaak intellectuel àndandoo jël ñaari fan di ko si delloo njugal ba tax mu woo Lutte TV woo Titi woo Queen Biz ñun daje biir Fuuta biir Caareen yaakaar naa ne am na lu muy lu muy def dëkkam kon ñu koy nuyu di nuyu waa Caareen yépp di wax ne nag booy Bawol Maaraw Seras moom Mamadou Sow boobu nekk ba Italie moo ko tëgg te nee da koo bëgg a bëree ñu bëree ci maanaam xam nga saison bi ne novembre lay ubbi moom bëgg nañ ñu teel koo bëri ñoom ñaar seen combat boobu. Mohamed moo nekkoon ci caméra bi Pam Ndiaye moom mu ci article yi di taxawaalu. Mhm. man ak Babacar rek ñoo koy continuer di ko comme niñ koy defee. Mhm. seen affiche moo ngi ñëw semaine bi semaine bii di ñëw incha allah di ko seetaan. Mhm. jiitee làmb moo ngi noonu chaque di ngeen ko seetaan. Mhm. BP Actu tamit am na lu mu ak génnee. Mhm. ak jam nu ko tuddee Dio de Soc. Dio de am na fa. am na bu mu enregistré ba pare Siteu ak Tarkindaay loolu di ngeen ko seetaan ci BP Actu. Euh, BP Actu am na looy waajal noo ko tuddee. fii ci fii ci Lutte TV. waaw ah. boobu fair play laaw. fair nga ko tuddee. yooyu yëpp xaar leen ko ak yeneen ak yeneen. ca BP Actu. na leer léppay leer incha ak Lutte TV point di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm. ñaw bi Lamine ku la ñawal. Soxaybu Seck moom ko ñawal. lii dafa rafet parce que tey jasneer nga sol dafa am solo yi ah, ki ko def daa jar di tudd kon sooy bu ñu lay nuyu borom Kër Massar ah. jasneer bi rafet na ah. man nag tey waax laa sol xam nga waax ma foog ne turki njaareem nga sol turki njaareem la mais tisi bi mooy waax waax la tudd turki bi mooy tisi bi mooy waax hmm. mais turki njaareem la lii moom Mohamed xamu ko rendez-vous samedi inshallah sacré cœur dëkk ma liberté 6